alors euh, mi ngi noonu ginnaaw bi ñu jógee ci waxtaan bu neex boobu ci rubrique jonge euh, actualité yi si lañuy euh, jàll nii ak Sow Poulo surtout awa papu awa alors tey je te laisse nga demee ca na la neexee nga wax ci li nga bëgg a waxtaanee oui madame comme d'habitude Walf Quotidien lañ koy lañ koy dooree lune boobu mi ngi nii toog ah, uh-huh. c'est vrai uh-huh. yaa ngi nii toog eh mi ngi defar waat <laughs> eh <laughs> zéro modestie zéro ça va. à quoi charmer nii. ah Macky Sall. non Macky. Macky du sa xarit. non façon. sa gars yi lay tam nag. Hmm? Macky da jàkkaarloo mi ngi doom day Macky Sall. Macky daa bëgg. ku jongo ma. ku jongo ma léegi da ngaa jëm da waxal jongo ma. jongo ma. jongo ma ayisa léegi yow yow yow yow amul. wolof kër Dieng nga koy commencé ah Sopula. bah oui wolof kër Dieng ñoom. Uh-huh. ah affaire aide alimentaire mm-hmm. yi. wax rek quoi. Mm-hmm. ah, mm-hmm. ah consommer local. consommer local waaw xam nga luy consommer local. consommer local mooy ñu consommer di am ci réew mi. ok ëpp na merci ah, mon frère. <laughs> <laughs> waaw gis nga ah xoolal dégg nga. dama cee non boole. xalaatu moo dina ma tontu tontu bu baax. waaw yow boole. moi c'est fait les bancs quand même. bien sûr xam nga c'est fait les bancs là mais Mawal aussi. dañuy consommé local mais ñoom tam war nañu war nañu di di di di di di bu baax ndax ñu mën di consommé local. mais est que ñi am tànk ndombal tànk ci réew mi ñu ngi consommé local ñoom ñoom ñu ñu koy sant. consommé eh, ëpp na ëpp na. bilaay walaay. suñu président yeeg suñu ministre yi déjà si seen si seen si seen port vestimentaire ay costume eh, rek eh, la ñuy noonu Thier nu mu demee nii Thier Thier yaa ngi liggéey Thier yaa ngi job aka job aka job bu ma yëngal waaye bu ma pikiir li ministre parce que c'est boo duggee ci ministère yi mais boo leen xoolee ñoom ñëpp finalement on parle de consommer local mais ñoom ñëpp ils consomment étranger ils consomment bitim réew. Mm-hmm. donc consommer local ok super Walf Quotidien mais gars yi ñoom aussi. Mm-hmm. ñoom mm-hmm. ils sont pas censés consommer local parce que euh, ils partent aussi du principe que ni gars yi li ñuy defar fii aussi amul amul benn espèce su euh, kii euh, matériel bi amul kiiwul production bi amul amul finition baaxul day gaaw a yàqu et cetera et cetera donc est ce que aussi c' parce que gars yi yoruñu matériel ils travaillent avec les moyens du bord donc li ñuy day baax day rafet nii boo ko xoolee mais après vite fait day yàqu. pourtant nag tel n'est pas le cas Sow Poulo ah. ah. je sais pas ñii defaree fii fii fii nii ci réew. walaay moo gën a baax fuuf li nga xamante nii moom la ñuy jéegaale. mais couture bi da ngay wax ci ci alimentaire ci aide alimentaire. man damay génne côté aide alimentaire bi si je prends li nga xam ne ci côté li nga xamante ni mooy meublier. Mhm. boo xoolee fii lal yi ñuy defar fii coiffeuse yeex yooyu noonu moo gën a baax fuuf gën a rafet li nga xamante nii mooy ay lalu importé yooyu noonu. ceeb bi ñuy bayee fii nii ci réew mi. xam nga ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy euh, nekk di ko di ko kaasax yooyu noonu. et pourtant ceeb bu neex la ça dépend ci koy togg na mu koy toggee parce que am na ceeb yoo xam ne naa bu seddee doo ko bëgg a lekk. pourtant si. ah je sais damay dégg mhm. man boobu moo gën a neex parce que mhm. da ngay digérer très vite boo koy lekk ceeb boobu. Mhm. si day mel ni sa mu nga si lekk ba suurte sa biir du du nekk di di mel ni luy diis ak yooyu. doom ay ballonnement waaw doy donc bah euh, je mais il paraît que boo ko bàyyee tuuti après day bu seddee dootul mel ni je sais pas et puis il faut beaucoup d'eau et ñu ne la boo ko lekkee ba pare day day day day boo ko day sedd ba dootul xaw ma lan benn defee de changement mm-hmm. ci biir ceeb bi bokk parce que dafay sedd moo tax mm-hmm. alors que yeneen bi mën nga ko après je sais pas loolu dégloo non franchement. ba si waaw dégg naa ko. les avis sont partagés tamit parce que. Euh, Ndeye Ndiaye Tyson moo ma ko wax. mais Ndeye Ndiaye Tyson. yaa ma ko nga wax rek li am na complication si togg kon mm-hmm. togg bi yombul il faut nga mën ko togg. c'est-à-dire am na aussi tamit prépara euh, euh, bi tamit également tamit. Euh, da nga si am dafa am tuuti coono. Mhm. donc si si si waa tànn beeg mhm. yooyu donc mhm. yooyu bu ñu ko bu ñu ko parfaire. comme foofu la Alioune Sow bëgg waxee quoi donc dañ ko parfaire. et donc comme lal yi ngay tamit maanaam euh, mobilier a a parce que tamit finition yi la ñuy am des fois problème finition. quelques rares ñoo fi am finition yu baax mais c'est trop cher également. par rapport ak bourse yi nga xam ne. voilà seen finition yi sax seen finition li gën a compliqué finition. Ah ils sont pas dotés de matériel assez. loolu assez kii quoi. voilà perfectionné pour mën a gérer comme le médecin africain le médecin européen mm-hmm. euh, le médecin européen dispose beaucoup plus de matériel sophistiqué mm-hmm. pour faire son ah travail euh, comparé aux médecins sénégalais euh, qui ont les mêmes diplômes les mêmes sénégalais mm-hmm. est beaucoup plus fort même plus et même beaucoup plus créatif avec beaucoup de créativité mais moyens yi beaucoup on travaille dans un pays pauvre donc on est limité dans dans la question du matériel. Mm. que ni c'est bien de consommer du local bon bah déjà on ne peut pas consommer tout à fait du local parce que n'est pas capable de s'autoproduire. Mm. c'est-à-dire que de produire ay lekk yoo xam ne ak yi mm. parce que est euh, euh, assez dépendant. on a beaucoup de dépendance par rapport à à l'étranger pratiquement. Mm-hmm. ñun lu ñu soxla dañ koy jënd bitim réew. tey euh, on a beaucoup de par exemple consommer local c'est bien mais ñun par exemple kii euh, mboq dañ ko soxla. Mm. yaa ngi dégg le blé dañ ko soxla pour mburu mi ak yi demee noonu pour boulangerie et cetera. Mm. et pourtant. dañuy dem on a on a beaucoup de terre. bëgguma mmh. la dagg mais. lan lay def daa am lu ma seetlu daal. Mmh. voilà donc. Euh, mmh. Euh, euh, ah ma defaral la. ca suuf. kon fi mu ko teg baaxul ca suuf nga ko def. yaa ko def ca suuf. mais mais ça va quand même j'ai j'ai un beau visage. Oh, un beau visage et puis une belle chemise aussi. et puis une belle chemise locale en plus. une belle chemise locale. tu vois bon ben moi moi j'adore tout ce qui est local en général quand c'est bien c'est que dama ci bare loolu rek. parce que xaw ma fu ma koy amee. Uh-huh. général quand j'en ai j'en prends beaucoup parce que man moo ma gënal quoi que les chemises en général occidentales sauf exception pour mettre des costumes wala yu demee noonu mais ah c'est vrai ah damay jantal ah mais ci situation bi saw à qui la faute je pense pas que si moment yii nii sax la suñu euh, suñu suñu président ak ñi mu àndal war a profiter pour doter leen de beaucoup plus de moyens ñoom ñi nga xamante ni ñooy nekk di def euh, des produits locaux ñiy bay ceeb beex yooyu mais demal ci bureau je ne comprends pas. Mhm. depuis combien d'années. Mhm. mu ngi béy ceeb. Mhm. mu ngi béy soble. mu ngi béy pomme de terre. ñu ngi béy yooyu yëpp. et que am na fi benn organe benn euh, euh, kii ITA. ñooñu xam nga dañuy dem ay recherche. waaye lu tax ñoom mënuñu dem xool. sunu ceeb bi lan moo tax euh, muy am euh, kii yooyu problème yooyu ah. ñu jéem ko parfaire ah. mais ñoom lan mooy seen liggéey parce que man loolu laa xalaat mais est-ce qu'ils sont dans les conditions moom laa lay wax dama ne la dama ne la non non c'est que gis nga fii euh, Aliou gis nga fii état gis nga Sénégal mm-hmm. dañ lay jox ab dañ lay jox dara ba pare mm-hmm. ne la gérer ko mm-hmm. mais duñ la jox ay moyens wala doom bëgg ko Sénégal dégg nga ci xoolal par exemple Euh, ci euh, Mansour Faye ceeb bi muy euh, wadi suwee nii ceeb bi nee na moom nee na que ñun amuñu ceeb bu maanaam ceeb waa ceeb bi nekk fii amul jeex na mu dem di jëli beneen ceeb dëgg la moom laa naa ko waaye pomme de terre baa ngi fi mhm. ak soble bi foofu mhm. mu ngi fi mhm. mais ñu ngi dem di importer di ñoom ñu ngi dem di jëli soble ak kii ak pomme de terre feneen lu tax mu mënuñu jël bi waaw bu dee amul dëgg la mais waaye bu fi amee nañ ko dem jëli. mais daf fi war am parce que am na nga suuf. am nga suuf am nga ndox yow am nga juróomi juróomi juróomi dex hmm. Sénégal am na juróomi dex moom laa lay expliqué waaw am nga ndox da ngay kii ñun ñetti weer la xaar mu taw hmm. pour ñu def loolu pourquoi ñoom du ñu créer une politique boo xam ne dañuy inciter population yi les agriculteurs notamment les paysans pour ñu mais suuf suuf saa ngi fi dama mës a ànd ak benn nit benn kilifa euh, il vient de Singapour origine chinoise hmm. ñu taw di daw ba si yàgg ci àll bi mu yëngal bopp bi ma mm-hmm. ne ko diw mais loolu da nga yëngal sa bopp ni mu ne ma y a trop de rien chez vous c'est dommage mm-hmm. est-ce que wax gi mm-hmm. mu ne ma y a trop de rien <laughs> sama morom la xool yëngal boppam ma ne ko lan la mu ne ma y a trop de rien chez vous ah c'est dommage quel beau gâchis may xool effectivement ñu ne waay ay ay ay kilomètres amul dara mu ne ma lii yëpp dañ ko waroon exploiter vous me laissez votre pays dix ans j'en fais un pays hyper développé dix ans vous n'avez pas besoin de pétrole parce que vous avez beaucoup trop de place vous avez le soleil mille six cent heures mille six cent heures de soleil la ñu am par jour par par par an pendant que l'Europe ay les États-Unis amuñu sax cinq cent heures de soleil par an ñu ne en a mille six cent mille six cent yooyu bu ñu lijjanti woon am nañu kii wu solaire yi mm-hmm. mun nañu di di di di di am loolu di di gas ndox mi nappe phréatique bi soriwul lu mu sori sori sori cinquante mètres la mm-hmm. ci Sénégal am na yoo xam ne da ngay gas un mètre boo dee maraîchers yi un mètre ngay gas gis ndox pourquoi du ñu exploiter loolu di di di bay nawet ak ak ak noor mm-hmm. pourquoi du ñu def yooyu yëpp mais blé ay bateaux yi blé ay milliers de tonnes de bateaux de blé ñooy dugg Sénégal pour ñu am mburu mhm. pour ñu lekk mburu mburu bi ñuy lekk ni ni ñu bëggee mburu ak beurre mhm. ñun pour ñu am ko ak mburu ak mayonnaise yooyu yëpp pour ñu am ko il faut que ñu dem jëndi mbir mi bitim réew pourtant on peut on peut l'acheter ici ceeb bi ngay wax ni Cheikh Diagne Gomis 17 milliards lañ jox HM mooy ki moom euh, loolu noonu planète Keba mhm. ñaari marché ñaari marché yooyu yëpp moom lañ ko jox pour mu dem léegi en fait xam nga Fatou lan laa fi doon wax la semaine dernière. Mhm. ci affaire problème bi dina am ay milliardaires yu bees. si baax na mhm. baax na rek. boobu li xewagul corona dina defar ay dina créer ay milliardaires. ak ay multimillionnaires ak ay millionnaires. Mhm. ak dina renforcer ay milliardaires aussi. na mujje si ce gars là. ñaari société yëpp. moo leen moom. buñ ko buñ ko waxul woon. bravo ah journaliste yi Sénégal am nañu njëriñ ah. on a constaté que ñaari société yëpp même waajee ko moom si la avoué ni effectivement moom moo ko moom parce que même adresse bi la en fait day posé ñaari société pour avoir le maximum bu ñu ko joxul kii jox ko sa des moo si kan euh, Sow Poulo HM d'accord moom moom Planète Kebab d'accord c'est un Libanais mhm. séminaire eh ben <laughs> super eh ben il va être encore davantage milliardaire s'il ne l'est déjà pas mhm. c'est dommage au détriment des Sénégalais pourtant 17 milliards mais du moom rek nag de non déet exemple la parce que moo fi nekk parce que Mansour Faye moom la ko jox. non non non non non non waxuma loolu dama ne. waaw moom bii. moom dina am milliards. Mhm. mais ñi ko jox affaire bi tamit. dinañ ci aay loolu kenn da ko waxati. voilà. mais loolu loolu kenn ah, waxati. démb rek ah, ba neex na ah waaw ba neex na. doo dégg la ko wax xoolal fu mu nekk nii man mii jël naa affaire bi jox naa ko Aliou Sow. <laughs> mais Aliou Sow nag dina. <laughs> Ah, moom dina ñëw teew. Eh, eh, Kylian. <laughs> Ah? Kylian. Mhm. Mansour day lekk par force. Mansour di nga lekk nag. ah bañ a lekk. da ngay lekk par force. 17 ah. milliards yi waa ji jëkk. waa ji waa waa ji du dépenser 5 waa ji du dépenser 5 milliards du dépenser 7 milliards sama loxo ci table. Mhm. li ci des il faut loolu laa lay wax waa ji bu dépensé dix maximum charge comprise mu des ay set mm-hmm. bon ben sept ñu diviser ko par deux trois et demi moom nag dina lay jël dina am kuy am. dina lay jël. di nga gis fan yi jox ñeneen ñu am kër bu bees. Mm-hmm. fan yi di ngeen gis ñoo xam ne dañuy am ay kër yu bees benn kër bu bees am na koo xam ne benn kër lay am. Mm-hmm. am na koo xam ne dina ñetti kër. am na koo xam ne dañ ko renflouer peut-être cent mille cent mille euros. ci compte bi nekk béréb sàngam. ca bitim réew. ndax ñii nii nii gañu marché bi mun nañ def loolu. Aliou Sow man j'ai un problème si si si loolu. dama am problème ci loolu. parce que xam nga bu ma problème la daf ma metti en fait parce que ñooñu noonu ñu jox marché bi bi nga xamante ni président lancé na appel pour ñu ñëw dugal seen loxo ci li nga xamante ni mooy xeex Covid 19 bi ñooñu kenn gisu leen si. en retour ñu jël suñu ay marché di leen ko joxaat. xam nga ko yëpp dama jëloon benn décision ni semaine bi yëpp damay wax ci ay sénégalais. Mhm. yoo xam ne ñoom dañuy jël di defar di mhm. defar seen réew. Mhm. di di wuti alal am alal bitim réew de dem ñafe ko indi ko. maa leen tuddal dem un euh, monsieur qui s'appelle Cheikh Baba. di ñëw di dóor waar kenn ce sont des gens qui se sont battus à l'étranger liggéey ak ay naar ak ay ay ay ay am dara ñëw indi ko seen réew di jàppale non seulement di investir seen mais di créer di def du social dans leur pays. mooy regarde le gars là qui qui est à euh, Guédiawaye maître waay aussi c'est Maître Moussa Dieng je journal mi wax laa maa ngi koy dégg ci suba mhm. mais c'est un que dama ko doon dégg lu bari mhm. journal quotidien moo si doon wax mhm. Maître Moussa Dieng mais il est en train de social terrible avec leurs maigres moyens billahi xoolal li ñu dundal xoolal waa waa géejawaay mais waa jaa ngi toj foofu moom Moustapha Dieng. <coughs> non c'est vrai ces gens là mais ñooñu la ñu war a jiital def leen ay maire parce que ce sont des gens qui sont généreux. Aliou yow mën naa la ko doon wax Habib Habib Niang bu xoolal mooy waa Thiès. Thiès waaw voilà Aliou Moussa Seck ñu ngi fa mais ak keneen ko Habib Niang. Habib Niang ay xale la ñu am Cheikh ay 45 ans la ñu am. lan laa la wax fii. non nee naa la gis nga oh, au nom de Dieu am na ñoo xam ne. ñu ngi si dëkk bi def te soxla ñu publicité xool ñi leen euh, feeñal sax. Mhm. parce que kii lañ leen feeñalee nii mais du ñu am na ñoo xam. mais da ngay war a feeñal nag c'est xam nga aussi ñii di wax bon parce que bon moi je pense tout de suite à quelqu'un comme. waaw bon je le dis ah je m'en fous. sama cëgg non non ay mais Cheikh Yane laisse-moi parler parce que Cheikh Cheikh Cheikh par exemple c'est un gars comme ça. xool lu muy def dans le sport lu muy mooli bi muy dugal ci sport pratiquement plus de millions de francs CFA par an sans compter social bi muy def à côté ñi muy dimbali Cheikh Seck ancien footballeur devenu homme d'affaires qui a gagné de l'argent mais qui aide son pays mais ñooñu kenn déggu leen pourquoi ñooñu je préfère franchement ñu joxal ma xaalisu xaalisu milliard bi 17 milliards yi leer je préfère ñu joxal ma ko Cheikh pardon je waaye Sénégal dañu sonn te dama bëgg xaalis bi di des fii parce que Cheikh Seck gëm naa ni xaalis bi ci Sénégal la koy dugal bu boobaa il faut arrêter un moment donné Macky Sall del jox gars moo ni bi ñoom parce que ñoom dinañ ko séddale Cheikh Amar ñaata yoon ñaata ñaata la defar Sénégal mm-hmm. ñaata xaalis la jël Cheikh Amar di ko jox ay doomu aadama fii ci Sénégal mm-hmm. may peex yaa nga may dégg yéen ñëpp mm-hmm. kan moo defar boye soo yàlla yéen rek suñu toit la nekk fii la nekk gars yi la donc xaw ma ko ah barke Serigne Touba Cherango ñi ngi toog di jàkkaarloo musuma ko jox loxo dama ko daan gis fuba bu ma ko gisaatee su ma ko xam ne yi dañuy màgget non xaw ma je sais pas mais man dama gis xamaan aussi non si non non parce que doo xam ne parce que man dama leen di non man dama man man damay gëstu ci nit ñi damay gëstu koo xam ne du ma ko sax xàmmee mm-hmm. damay xool yi ñuy def kii nga lay wax ni Moustapha Dieng bi la wax ni Guédiawaye xam nga ko c'est Moustapha Dieng là il est en train de faire des choses terribles à Guédiawaye xam nga uyuma ils ont pas beaucoup d'argent mais ñi ñoom ñu koy bokk ñooñu pourquoi duñ leen jàppale ñaata jàkk la c'est ça qui me fout les boules ñaata jàkk ah la tabax je savais pas ça wër naa lu nekk nag mais wër ma jàkk bi gisuma ñaata jàkk la Cheikh Seck tabax ah ben voilà bravo ñaata jàkk damay nekk da ngay dem Medina nga laajte waa Medina ñu may dégg waa Tëngéej ñu may dégg ay ñu bare ñu bare ay jàkk Oh, oh, oh, ay jàkk mu koy tabax. j'en ai y'en a marre lu mu am mu dugal ko doon xam nga am na ñu mel noonu. mais ñooñu ay Cheikh Seck mais ñooñu ay ñu mel ni Cheikh Seck ay ñu mel ni Babacar Ndiaye. ay ñoom c'est que sont des gens yoo xam ne. mais ñooñu laa bëgg ñu leen di jox xaalis bi na leen di jox moo ne ni ñu ngi liggéey parce que xaalis bi. ci fii parce que maxu mun nga ci am yow Fatka mun nga ci am. voilà ñu leen dimbali wala say cousin wala yu demee noonu. c'est ça qu'il faut faire wane wu rek wane wu rek. il faut arrêter à un moment donné c'est que ay ñii nii xaw ma leen isam machin moi je ne veux pas de ça mhm. je suis désolé et encore une fois ne me dites pas que je suis raciste. parce que man man maay man maay universalité man. man mii maay universalité. fu nekk dem naa ko lu nekk gis naa ko. samay doom dañuy làkk allemand di làkk français di làkk anglais di làkk espagnol. kenn ki italien kenn ki espagnol. man xamuma yooyu. waaye dama ne Sénégal suuf dëkk la bu tudd Sénégal doon une nation avec des gens à l'intérieur qui doivent revenir à leur dignité te que le pays soit organisé et surtout réorganisé parce que dafa am ñoo xam ne dañu bi di ko saax-saaxe di ko jël di ko yóbbu bitim réew man dama bëgg mu des fii dama bëgg alal bi di des fii gars yi di ko séddoo ñuy créer ay entreprise te yooyu dama gëm gëm ni parce que nag dafa ma gars xam naa fi ñuy dugal seen xaalis je suis gestionnaire de patrimoine xam naa fi ñu dugal seen i xaalis xam naa ni koy séddowee sànq dama ne la 17 milliards dix yi mën na dem ci ceeb bi ak transport beeg yëpp waaye sept yi ni koy séddowee approximativement xam naa ko. dispatching ñi ko war a si war a am xam nga ba taxaw ne Mansour day lekk di nga lekk. waaw. Diop li nga li nga jot yow yow boobu ba jëm kaw jëm suuf ñu ne kenn du cinquante transporteurs ay camions ñu ne ñoom. cinquante am nañu cinquante cinquante camions yoo xam ne dañu koy jox nguur gi gratuitement jox leen jox leen gasoil rek ñu dem yóbbul leen seen ceeb yi fi ngeen ko bëgg transporter leen affaire bi gratuitement parce que ñoom loolu la ñu mën a defal Sénégal. Mhm. ngeen ne yéen doo marché bi Diop si. ah bon abasi ah mais déet ça c'est grave ça c'est grave ñoom dañu am nañu dañu ne am nañu dañu ne ah moi je veux ba ne cinquante camions am nañ ko pour à disposition pour l'état du Sénégal parce que amuñu alal bu ñu joxe. comme ñeneen ñi mm. waaye loolu mën nañ ko def. waaye dañ leen laaj rek. carburant carburant. ñu ne ñoom déedéet marché bi joxe nañ ko ba pare. match boobu du ñu ko annulé bu ñu ko joxee ba pare bu ñu ko joxee bor du ñu ko annulé parce que pour l' Sénégal xaalis boobu ñu ñoroon jox euh, def confinement Kër Massar bu ñu defee confinement Kër dina jàll parce que dina leen dinañ leen dundal mhm. wax nañ leen ko fii ma ne li ngeen votel Macky Sall li ngeen kii lii la mu ngi nii nag mhm. aywa Sonko waxoon ma voté mu ngi ah. donc les jeunes qui sont là ngeen ko mënal leneen mais les jeunes qui sont là qui sont en train de faire des efforts moo taxoon semaine bi dara lañ ko mënoon ben si moo tax dans ma stratégie de communication ah. j'avais pris l'initiative de parler de ces jeunes là et je veux que les Sénégalais les connaissent mmh. dama bëgg ngeen xam leen mmh. am na ay nit ñoo xam ne ñu ngi tudd ay Cheikh nekk ci am na nit ñoo xam ne ñu ngi tudd Moustapha Dieng maître Moustapha Dieng nekk Guédiawaye dafa def lu dara jarul mmh. ci lu baax te doolu ay Sénégalais ba pare bari leewuñu li ñu am di ko bokk ak Sénégalais ba di kontaan xaaral ñu Macky Sall di distribuer ay ay gel hydro euh, euh, hydro comment. mais ñoom avant ñu loolu yëpp ñu def ay liggéey yu mucc ab Habib. Habib ñoom ñooñu la war a def mais ñooñu Cheikh Yang Cheikh Yang bu jotee nag Cheikh Yang xam nga may wax lii. waaw doguma rek après bu bu bu maire bu maire jotee. élection locale. dama bëgg ñooñu. Mm-hmm. Sénégal def leen leen neex mhm. waaye boo gisee ma leen leen parce que dama bëgg ñooñu mhm. ngeen def leen ay maire mhm. ay ñoom maître Moustapha Dieng ay ñoom Habib Niang ay ñoom Cheikh Baba am kooku sax est-ce que bëgg na nekk yooyu parce que moom bëggul sax li may wax mais mais ça m'est parce que man ku ma wax tu prends le risque de me parler wala ku ma wan boo ma wanee ma damay wax bu bu ma wan ndax man intérêt Sénégal moo tax a jóg ce sont ces gens pour qui sur Fatouka on doit compter pour que ñu mun a gérer suñu localité yi ñoom Habib Niang ñoom maître Moussa Dia ñu baree bari ñoo xam ngi ci Sénégal ak euh, Famara Sarr aussi ah. bi nekk bi nekk fan bi nekk euh, Thiaroye Thiaroye sur mer wala sur euh, mm-hmm. mais c'est un gars qui est formidable xoolal dañ koy wax ni genre ay doole bu ay machin et parce que vient du Saloum et pourtant c'est un gars qui est en train de faire un boulot formidable je n'aime pas ces injustices